assalamu alaykum maa ngi leen di nuyu di leen wax ñi ñun ak ñom ñoo dëkk ñu nekk ci commune HLM bi handicapé des HLM kon tay suñu événement ñëwee war nañ leen ci xalaat boole leen ci xeyna nak dañ ko def ni parce que sen association bi bu maga a mag la mais xeyna na ñëpp xam nañ lu ko waral moy Covid 19 bi ñuy téré rassemblement yi ak lepp mais li ñun yag nañ ko def té bobu Euh, duggaguñu ci politique kon tey suñu duggee ci politique dinañ leen ci gën a jàppale ñi nag nekk ñenn ñoo xam ni kenn mënul dem bàyyi leen tey loolu moo tax geste bi ñu def ko ci turu mouvement sa dëgg-dëgg pour jàppale leen ci événement bi ñu jëm Korité parce que suñu soxlaa tam ñoom dañuy jóg pour jàppale ñu kon tey lii su amee tam ñun war nañ ci jóg jàppale leen def ci lu ñu ci. waaw lu ñu tàmm def la boobu duggaguñu sax euh, mën naa wax ci mouvement. te tey lu ñuy def nii dañ koy def ci commune HLM bi yëpp dañuy xool tey ñenn ñoo xam ne association ñu jàppale leen xool tey néew ju doole yi ñu jàppale leen xool ñenn ñoo xam ne taalibe yi ñëpp ñu jàppale leen ci événement bi ñu jëm mais tam bëggoon nañ ko def loo xam lu gën a mag mais ñëpp tam xam nañ tey lan moo waral ñu def ko nii rek pour def tam remise bi euh, sama jigéen yi ak euh, sama. ñun xaar ñu woon kenn bu corona bi duggee tam def nañ jàpp ni HLM lañ dëkk ci commune bi lañ dëkk lépp loo xam ne lu ci waroon ci gel. ci lépp loo xam ne feebar bi dañ wax daf koy bañ ci ndimbal lépp jàppale woon nañ leen ci tey tam dañu ñëwaat rek pour def li mais ñun ci loolu lañ dëkk ak waa commune HLM. waaye nag yàlla def na ci mbaaxam ak kattanam ki ñu seet si tey du Cheikh Mbaye du jëmam ji moo tax may wax parce que ñun bañ fi njëkkee ñëw boobu ñun xamaguñ sax ci lu muy dugg mais dafa ne man lu ma munti dugg xam muy politique lu dul politique sama yoon newu ci mais yéen ñii war a njëkk a jàppale te depuis ngi si jàpp kon du tey rek c'est pas la première fois ko kon lii dañ ko war a di parce que tey am na ñoo xam ñoo ko ci gën a yey ñu ngi fii ci dëkk bi maanaam am nañu mairie am nañ lépp comme am commune ak yëpp ñooñ dañuy war a jàppale parce que dafa am loo xam ne suñu àq la ak suñu yelleef tey jii du ñu dem di jéggaani beneen quartier dem di fa wut ay ndimbal wala naan jàppale ñu parce que du raison loolu tey boo seetloo association Médina mu ngi dox parce que seen quartier ñi fa nekk ñu ngi leen di jàppale wakaam euh, sama association xam nañ bu baax li may wax kon suñu demee tey ba am ku mel ni Cheikh Mbaye dañ koy santé yàlla te nee na moom defu ko pour ngistal def ko pour politique du tey la seq ak ay teraanga c'est pas la première fois lii nag dañ ko koy ñaanal lépp loo xamante ne mu ngi ko ci bëgg yal na ko ci suñu borom defal ndax xale la am na jom xam na yoon mi muy jaar te it am na jom ndax yaakaar naa am jom weesul nga ñëw bàyyi HLM nu muy yaatoo yëpp nga ne yéen association lépp lu may def ci yéen laa koy njëkkee te wax na ko léegi léegi sama association ñu dégg ko kon yaakaar naa c'est pas la première fois mu def ko ñu ngi koy ñaanal nag gudd fan ak wér lii mu def nii du ko réccu de parce que daf ko njëkkee ci ñam ko war a jox.